sëñ Sidi Muxtaar addis bi yonent bi wax moom dal na ci kawam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni xayrukum man taala umruhu wa hasuna amaluhu ki gën ci yéen mooy ki fi yàgg te ay jëfam rafet. day jëmu joo xam ne ji. di jambar l'islam waxuma la yoon wu waaye lislaam gépp la la la حق البكاء على سادات أمواته تبكي الأراضي عليهم كالزماوات حق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالزماوات إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا falan yuqbala minhu wa fi l-axirati min al-xaasiriin Sëriñ Tuubaa wax ne diinun siwaa islaamihi laa yuxmadu hindal ilaahi wa bihi nujaddidu waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu dama bëgg jullit yëpp aaya jooju ñu dund ko mu bañ a doon loo xam ne dañ koy jàng suba ngoon te kenn du ko xam te kenn du ko dund mooy jullit yëpp nañ nekk benn loolu bokk na ci ay waxam yi jëkk ci ay waxam bi mu nekkee xalif sunu borom bi subhaanahu wa dimbale ko ci kenn ku nekk xam na diggam ak jullit yi ak fi mu tegoon diine ji ngir bëgg jullit yépp nekk benn murid yi yépp itam nekk benn loolu bokk na ci li nga xam ne bi mu toogee mooy njëlbeenu lëggéeyam jataay bi li ko waral mooy fàttaliku ak ñaanal ak delo njukkal serigne Cheikh Sidi mukhtar mbake radiyallahu anhu mi nga xamne mo nekkon khalifa serigne Touba gannaaw ba mu nekké khalifa Cheikh Modou Lamine ibnu khadim Rasoul liggey liggey bo xamne la mag yakaron ci mom lepp matal nako yitté ji nga xamne amon nako ci julit yi nekk benn ne ju bax ja bëgge way juremi da ko doxé nona mu ñew taxaw tem ci. taxawaay boobu ngir jullit yi nekk benn. ni nga xam ne ni la ko maamam Seyxul Xaddim euh, bëggee woon daan ko dund ba tax na wird yu nekk mu jaar ci. yëpp wird rek est-ce que lu wird ni wird murid li adaratilaay wala yahida ca sun borom la jëm loolee nag moom sëñ bi da ko wax ba noppi mu jëfe ko. loolu kon wane na ne la maamam bëggoon rek di Seyxul Xaddim loola rek ca la jaaroon di ko soññee ba yàlla defal ko ci ndam lu rëy lii mu ko ci defal ndax mujj na. jullit yépp nangul ko ni nga xam ne ni la taxee woon ci euh, lislaam bi ngir ñépp bennoo moom it suñ borom defal ko foofu may goo xam nag moom la ko yàlla xaasale ndax ñu ko jiitu woon doon bëggoon nañ ko waaye bañ seetee ba xam ne ab cërëma dañ ko ko bàyyee moom daal ni ma koy waxee rek dafa mel ni ku déggoon aaya bala muy innamal mu'minuuna ixwatun fa bay na axawaykum kon nag la mottali aay ba rek ñi ngi yaakaar yërmande suñ borom ca loola ci moom muy wattaqullaha laallakum turhamun sëriñ Tuubaa waxoon na ne wa min shahaadati lfata xaytu qasat allaa yurdahu fuaadu zirasat suñ doon defal ko mboolem xoolu jullit yëpp nangul ko kon ku yàlla defal daw feex la matul lay lay def ëllëg fa sëriñ Tuubaa ak sëriñ Baara yonnen ak borom asamaaw sëñ Sidi Maxtaar kenn la woon ci lislaam koo xam ne kii sëñ Tuubaa rek ma ko sàkkan ngir mu taxawu liggéey ak ñun nii. yëg nañu ne daal dund na ci diine ci loo xam ne dund bu yaatu la boo xam ne képp kuy jullit mënuloo ko fàtte ndax taxawaayam rafet na ràññeeku na lool te diine ci ñor ko murit gi ñor ko bokk gi ñor ko loolu it lu ci nekk wane na ci liggéey bu rëy a sëriñ bi nee na ngi ñaan itam. li nga xam ne. li nga xam ne. moo xew ci jamono bi. moo xew ci jamono bi. tariixa yi. ci tariixa yi. loolu laa bëgg mu jóg fi ba set wecc. loolu la bëgg mu jóg fi ba set wecc. ndax lépp. ndax lépp. lenn la. lenn la. tey jii Sénégal gépp ngi waroondoo te yàlla ak ñaanam ak yàlla ak taxawaayam tey moo ko indi ci moom. moo tax mu mu waxoon ne bëggatumaa dégg diw ci tariixa sàngam la bokk diw ci tariixa sàngam la bokk. ba dit ba tarixa yi fi nekk yëpp boole seen kàddu jox ko. bi mu agsee moom dafa daal di ne bëggatuma dégg eh, murit tijaan xaadir wala leneen julli yeeg yëpp na na bennoo. benn la ñëpp. loolee moo ko moo ci moom dong la daanaka ñëpp bëgg na ko waaye ci loxoom la ko yàlla eggale Cheikh Sidi Muxtaar bu dikkee saf ca lañ fi sosaan kuy wut ngërëm ci Sëriñ Tuuba da cee war a gaaw Cheikh li nga xam ne it bi mu toogee to li def na ko ci ay jëf yu bari yuñ mënta lim li aju ci li nga xam ne mooy wàllu diine ji képp mën naa ca yem du ma ko mën a matal sax waaye fonk gum fonk lu jumaa yi ak jàkka yi fonk lu diine ji fonk fonk lu ak taalibe fonk lu waxtu yi juróom di wax ne ne jumaa yëpp di fees jàkk yëpp di fees ak yu mel noonu ak lu mel ni aju màkk gi ak lu mel ni liggéey ci bindeef yi liggéey boo xam ne bii bu ñëpp teg loxo la. bi muy door jóg mu ne jàkk yi day tabaxuñ ko rek ngir muy am benn sàppeek ñaar. waaw tabaxuñ jàkk yi ngir muy am ñaari sàppe ki benn dañoo tabax jàkk yi ngir bëgg mu fees kon na ngeen di dem ci jàkk yi di julli ci loolu yëkkati na ci kàddoom ba àdduna sëpp dégg ko kon xam nañ ne kooku jàkk ak julli ak jaamu yàlla ñoroon na ko bu daa ñëw di julli si jumaa moo ko daa ñëwante bu cooroon jotee ba nga xam ne day duggee ci foofu ci buntu penk bi ay kawas sax nangu ko sol hmm? lay def man damay toog ci buntu bi jàkkaarloo muy ñëw kaala gi mu daa muuroo nii di muuru sax def telefum da koy da koy aj da koy wàcce boppu kese lay def ci naaj wi tànki neen dafa dajale teraanga yëpp eh, daraja yëpp te eh, ndam yëpp ak baax baax yëpp far far sumuru noonu la borom xam-xam eh, koo xam ne ki yëpp dafa daje ci yow nga far sumurlu rek talasu iya, iya. ba tey loolu mu doon ko ci maam seigne def lepp def na ko marqué ne jamonoom waaye juróom mu wa Cheikh abdullah Ahad mbake radiyallahu anhu da waxon ne aduna kenn du fi sax waye ku fi jaar war nga fexé bu ku ñëwati ci ginaaw xam jaaran nga fi nak seigne def nako ko seigne abdullah Abdoul Ahad waxoon ni mamarrun la maqarrun loolu la waxoon mu ni aduna ab kay la du ab du ab du ab mu ni so fi jaaré nanga fi rëdd rëdd rëdd woo xam ne ku fi dikk dana xam ne lii yaa ko fi defoon. dund ku baax lu mu yàgg yàgg bu fi bàyyi ko day mel ni ñetti fan la fi am ndax am nga njëriñ. jumaay seexal xadim ji ñaari sooraar yu ñaari sooroor yu du fi jóg ba mukk te ku ko tudd danga tudd sëñ Sidi Maxtaar jumaay ndakaaru jee daanaka sotti na te ku ko tudd da nga tudd sëñ Sidi Maxtaar këru sëñ Tuubaa gi ci yoonu uh, Mbakke bi daanaka sotti na te ku ko tudd ba tey da nga tudd sëñ Sidi Maxtaar. ñi mu war a liggéeyal ñëpp liggéeyal na leen liggéeyal na diineel islaam liggéeyal na waajuram Cheikh Mouhamadou ba ñëpp teg seen bët liggéeyal na maamam ci wóotu gi mu liggéey ñëpp teg seen bët kon jëfam rafet na te loolu rek nag moo am solo. moom moo ma wax ne sëriñ Abdou Lahad day jox naa ko fan jot maa fan fanweeri lettre ak juróom-benn. yoo xam ne damaa dem liggéey addiye ñëw jox ko sëñ am sa moom daaru mu si mu yët mu jox ko sëñ laxaat Lahad laxaat mhm. Abdou Lahad bind lettre tontu ak firndeel ne jot na ci jox ma ko nee na mu buñ mujjee jot muy fanweeri fanweeri lettre yeeg juróom-benneel mhm. bi am sa ci fanweeri juróom bi ko bi mu mujjee joxe dafa ñëw sëñ am sa dafa jox ko ne ko nee na waaye nee na na fa ñëw. nee bi ma dajalewaatee maa ko yóbbul sama bopp bi ma toogee sëriñ Abdou Lahad mu ne ma siidi mu ne ma mu ne ma mu ne ko yow dangaa bokk ci ñi war a yor liggéeyub Sëñ Tuubaa moom moo ma ko waxal boppam ci sama nopp ak làmmiñam Sidil Muxtaar la haalim la borom wilaaya la sëriñ Sidil Muxtaar du moroon mooy Bàmba ci xërnu bi ku ko xam dëgg da xam ne léppam Serigne Touba la ci daan jiital bu fekkee la muy def la muy sémb moo xam moo xam sororam yii la moo xam jumaa ji ci Masaalikul Jinaan la. sëriñ bi ku ku liggéeyal sëñ ku liggéeyal sëñ Touba ñoroon la ndax diireb lim fi nekk muy juróom-ñaari at yu teg musu musumaa jàkkaarloo moom te waxuma lu jëm ci dëkk bi walla ci nit ñi wala ci yoonu murit bokki boppam yi ak dëkk bi ak sëñ Touba rek lay wax man. koo xam ne kii ay jëfam boo duggee ci dëkk bi rek jàkkaarloog moom ba àddina tukki loolu dootu fa jóg loolu doy na sëkk ndam doy na sëkk seede ci moom te mooy li mu def ci penc mi ñëpp di ci teg seen bët loolu rek doy na ci moom seede ci ni aw turam dootu fi jóg ba àddina tukki bi nga yóbbu baytilaay Mbàkke yàlla na yàgga dem baytilaay yaay doonay borom baytilaay yaa doon Bàmba ci xarnu bi. aju mag am naa ci bokk naa ci ñi ko mën a seere ndax at mu ne daana jaarale ci sama loxo lu néew néew néew ñett ba ñeenti biyee makka yoo xam ne daf mën a na nga seet ci jumaa ji ñu ko yeyoo nga jox leen ko ak ci bokk yi nga xam ne ñooy bokki mbusuur bi ci ci ci ci ca gerte googee ñu ñu ñu ko fa yeyoo te ñu war leen koo jox nga at mu ne danaa la jox bi yoo xam ne yii ci jumaa ji jëm yii ci bokk yi. Mm-hmm. ab liggéeyam daal boo doon seet ñi mu yóbbu màkk rek danga nga naan kenn attanu ko mm-hmm. boo dee seet li mu li muy li muy dimbali ci bindeef yi euh, ci ci xew yi gàmm yeeg yooyu mm-hmm. da naan loolu kenn attanu ko. ba loola moom naru ko lim naal du niil. te du naab saay dox na tànk yu gaaw. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom daf ko daf ko mayoon ni ko laa uskar illaa wa tuskar may fu ñu ma tuddee daañu la fa tudd boo nee asadu an laa ilaaha illallaah asadu anna muhammad rasulullah ci la ciy topp. seexal xadim bi mu ñëwee it loolee ko loolee nga xam ni sunu borom tabaaraka taala rafaatale na woon ko yonent bi su sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxaat ko seexal xadim. taalibam yu mag yi ko toppoon nag. Cheikh Ibra la woon ba mu ñëw mu ne ko rafaatale naa la li ma yónnent bi salaatu alayhi salaam rafaatale woon te sañ tubaa rafaatale ko ko foo ne Cheikh Serigne Touba it teg ci Cheikh Ibra Fall loolu te ab taalibe rek la ci jëfa ko may loolee nag ak nangu tànk yooyee nag la suñ si di ma tar jël ci diggam ak sëñ Touba doxalu ci mbokk doxalu ci sët dara itteelu ko woon du nekk taalibe Serigne Touba lim bëggoon ci noonu mooy la sëñ Touba bëggoon ci noonu moom daa digal te moom la saxoon ñoo itam nañ fas yéene loolu mu nekkoon du taanu jóge la bu nu wan a ginnaaw it buñ ko sàggane nan ko roy te bés ko yéene topp ba jiyoog moom ci ndigal li mu digal yépp sax ci faw rek dox yi na mu sell woowu nga xam ne moom la doon dox bokk yi di ko leeral ba yu bari man cee génne loolu bari na ñoo xam ne gis nañ ci ay gisin ndax ni mu nekkee woon juróom-ñaareelu xalifa sëriñ Touba noonu itam ne la bari ay chiffres juróom-ñaar yu ñu takk ci moom. xam nga dañ la ne mooy juróom-ñaari doomi sëñ Baara Mbacke. toog na fi juróom-ñaari atam yi ak juróom-ñaari weeram yi di di juróom-ñaareelu xalifa juróom-ñaari sooro ci jumaa ji ndax juróom fi nekkoon mu dolli ci ñaar. bisi sun borom def na ko juróom-ñaar si am so sa àla ars asaman si di jurom ñaar so fi di jurom ñaar mo am jurom ñaari at ak jurom ñaari wer jurom ñaari fan yi seigne Touba am ci géej gi moom la dundat ci ko àddina si te defar na fi lu tan li sëñ bi defoon ci géej gi kon moy euh, sahibul musabaati am si ci Sidi Moxtaar mm-hmm. defe naa jurom ñaari at jurom ñaari wer ci top ci ni ko waxe mm-hmm. bi muy dikkit mooy juróom-ñaareelu khalifa ci kër sëñ Touba ki moy sëriñ Cheikh Sidi Moxtaar yàlla nañ ko yàlla fayal jariñal na yàlla bindeef yi te mooy li am solo liggéeyal na lislaam te mooy li nga xam ne moom la ko maam ji doon doye ak waay juróom yu baax ya waaye nag liggéey bi lépp bi mu koy def am na ku mu àndal ku dalal xelam koo xam ne da koo tegoon ci wetam muy Cheikh Mamadul Muntaxa xam ne Cheikh dul Bachir nee naa ko am kilifa la dàqaloon waaye yëpp dogal nangoo ca gën te mbir mi yaa ko leble woon bindeef yi war na laa njukkal kooku mooy Cheikh Ahmadoul Mountakha yàlla na yàlla guddal aw fanam. di ñaanal nag ki nga xamante ni bii moo ko fi wutu di Serigne Mountakha Bassirou suñ boroom guddal aw fanam wéral ay cëram te yokk kàttanam ba li nga xam ne jaayantewaat na ko ci yoonu Serigne Touba fas yéene koo lëggéeyal ñun ñu fas yéene ànd ak moom jaayante koo ga topp ci ginnaawam fas yéene làq ngërëmam. Cheikh Mamadou Mountakha mi sumbu gim sumbu te ñep xam ko ci pas pass ak bëgg sëñ touba ba jax ca tak ba wu ci dara li nga xam ni li sëñ bi bàyyi woon na fi nattab li wu ni dana ko akalé waye dañ koy ñaanal yalla nak mu sofaat fi lo xam ni li jëf ju sax lay doon jo xam ni ju ni doon jo xam ni ku tuddu mag boole ko ci تبكي الأراضي عليهم كالسماوات حق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من في غابوا بالحلاوات يا لهف نفسي على فقد الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات